jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte niñ koy defee saa su ne tey nag ñëw nañ ci kenn koo xamante ne xale la mu bokk ci làmb ñu gën ko xam ci ñang mu nekk ci écurie Dóor Dóoraat mu bëre combat léegi ñu jóge jóge fi nga xamante ne mooy arène nationale mbokk yi ñu ne dañuy ñëw ci këram waxtaan ak moom ci làmb waxtaan ak moom ci carrière am waxtaan ak moom ci gëj koo gis biñ ko gëj a gis ci làmb ña baalo maa ngi lay siyaar. waaye maa lay delloo siyaar. waaye di sant yàlla. julli si yonent bi sant sama ñaari waajur di sant sama yaay bu baax a baax a baax waaw. waaye. lu indi turu ña mbaalo bi ci la. waaye ña mbaalo. waa ña mbaalo sama benn grand moom noonu ko doon woowee Ali ñang maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax sama doom baay la sama mag la moom lañ doon woowee ñang baalo mooy jamono di dox di dox dox man tamit gars di ma wax ñang baala ñang baala avant làmb la nag bi nii. Mm. loolu moo indi mm-hmm. dugal ci làmb. waaw làmb nekk ak gars yi rek nekk ak dëkk ak ay mbër sama grand frère nekk mbër am Cameroun. Mm-hmm. waaw moom moo dugal ci làmb moom moo nu dugal ci làmb. waaw waaw Pape dugal ci làmb. Mm. Mm-hmm. waaw. ci làmb bëri nga mbapat. naa mbapat. Mhm, bëri naa mbapat. dañoo dañoo dañoo dañu gis ña mbaaloo ndeysaan sérieux bi concentration beeg yar gi lu xew. waaw ñun lépp sunu boroom la rek. waaw sunu borom moo nu moo ñaanal boppam moo nu. bindee nii daal. ñun mënuñu waaw mënuñu mel neneen du dul nii ñu mel rek noonu la ñuy mel nag ba keroog ñuy sàngoo ak suuf. duñ changé. non non duñ changé duñ beew. non non ñun doon àndal démb la ñuy àndal tey. waaw ñeneen ñu ñëw nag. dañuy topp si ginnaaw gars yi rek. loolu la ñuy ñaan yàlla te yàlla na ko yàlla mottali yéene googu noonu. gëj gis lu waral gëj a gis bi. gëj gis bi du dara ceene woon rek. waaw xam ni yoonu ndaw moom du gaaw nekkoon ci ay. waaw sant yàlla daal sant yàlla nekkoon ci ay business nii. waaw sant yàlla bu baax a baax. business yu lan. waaw nekk si rek. xam nga nattu moom du wees. nekkoon si ay nattu. Mm. sunu borom am fu mu ma làqoon. mais natu da yokku màkkaa may góor yàlla ko waa waaw ñun ay góor yàlla lan di sant yàlla si nattu boobu noonu di ñaanal ñooñu nekk fa muy waa peese xam nga mm-hmm. di leen ñaanal yàlla teggil leen natu bi ban ñëwaat ban ñëwaat si société bi xam nga mm-hmm. waaw lépp ku nekk daal yaa xam lu la fa yóbbu mm-hmm. yàlla la ko borom bi teggil di leen ñaanal Sambour in ba 48 di ñaanal ñëpp waaw ndeysaan mu mu doon loo xamante ni làmb dañoo am ci yow yaakaar rawatina Parcelles Assainies ak Cambérène tey ñu jékki-jékki gisatuñ la ban temps ñaata temps toog foofu te gisuñu la. waaw suñu boroom. Mm-hmm. waaw bëri na bëriwul. Mm-hmm. ndax ñu ma gën a yàgg ñu ngi fa. Mm-hmm. bëri na bëriwul benn quatre la woon nii rek. waaw amaana sax motu ko sax manqué na nii. waaw manqué na motu ko sax benn trois ans six mois affaire yooyu noonu la gars yi toogoon ci suma may instant nii lu ma fa nekk yëpp nag maa ngi bàyyi sama xel ci gars yi xam ni xam nga ay xaritu mbër laa amoon ay Déthié ay Doudou. xam nga ay Giro Seras ah Sidi ak ñeneen ak ñeneen ñooñu man ak ñoom nekkul affaire de bëre avant bëre la ñooñu mën a limal nii ay Sidi xam nga Pape nekk suñu grand. ak ñeneen ak ñeneen. waaw moo tax ñooñu fépp fu ñuy dem rek nañuy ànd ak ñooñu. waaw ndax ñoom ñoo ñu jiitu si làmb mais ñoo doon ànd ñun ñëpp ay morom lan même génération la muy duuru dëcc xam nga giro siidi ñun ñëpp même génération la mais waaw noonu la demee daal. ba nga nekkee fële 100 euh, mètres lan nga fa yëg quoi ban yëg-yëg nga fa am ak loo fa jàngee. bëri na. Mm. bëri na luñ fa jàngee suñ koy lim duñ fi jógee. Mm. waaw ñu ngi fay jaamu yàlla bu baax a baax a baax lu suñu yoon nekkul sunu yoon nekku si xam nga génn nekk sunu entraînement xëy liggéey wàcc ñëw suñu gaale ceene suñu bëggee gisante gaay ñu dem dem gaale dëcc seeti ko dem gaale duulu dem gaale giro xam nga gaale siidi dem ceene dal jaamu ak sama tuutaanga bi njuñ dem gaalem wala ma dem gaale amet ñu ceene toog waxtaan xëy ñu dem te digg suñu xëyee ku nekk dem dóori waat ñuy liggéey liggéey ñuy dem entraînement dem entraînement ba suñu yàlla mayaatee jot ñu dajawaat. noonu la ñuy dundee ñun ñëpp. ba nga nekkee foofu daan nga bu baax a baax a baax. ñaata séance nga doon ak entraînement bi heure yi nu muy demee. waaw ndax man ba ma nekkee foofu noonu. waaw dama fa bëree dem fa final gars yi xam ne kii nii mbër la dama doon yeewu 6 heures du matin. heure appel. dem entraînement. su ma demee entraînement 9 heures day fekk ma pare 7 heures day fekk maa ngi maa ngi dese tuuti ma entraîné dem ndékki ba suur dem liggéey dem liggéey foofu waaw ma doon liggéey foofu liggéey. foofu liggéey naa fa liggéey yu bëri liggéey naa fa maçon plombier yenn business yu bëri liggéey naa ko fa. Mm. Mm-hmm. su ma demee liggéey wàcc cinq heures su gars yi duggee damay entraîné waat. Mm. dem tëddi. waaw léeg-léeg nag ma xam ni instant nii nii nii ma dem ba xam ni man maay ngi jeexal hmm. ma ne nag instant damay arrêté liggéey bi di entraîné suba ngoon heure bu ma doon xëy di liggéey heure boobu noonu laay yeewu garde yi nan ma koy may ndax dañuy xam ni kii mbër la. Hmm. ma dem liggéeyi ma dem entraîné ñëw tëddaat ngoon ma dem petit camp yi. Hmm. daan na fa am ay sa moromu naataangoo mbër yoo xam ne yaa ngi leen fa daan gis ngeen ne contact wala entraînement yu demee noonu. am na bëri na. booy toujours pare. ñoo fa nekkandoo woon. waaw. am na gouverneur mi ngi fa ñu ngi ñaanal yàlla mu teggi natu bi. Hmm. xam ay hélas tëgg ay ñoo xamante ni duñ ay mbër sax mais mbër yóbbulu leen dara. Hmm. ay hélas tëgg sa ay maamur ko xam nga ñu laa doon kontaagal. Hmm. ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ay caatu piyool bi. day bëre day bëre dimanche Grand Médine la dëkk. caatu piyool bi dañ doon kontaak lu bëri. bëri na am na ay mbër yoo xam na ñuy contact naaj moom. Mm-hmm. kañ lay génn kañ nga ñëw. waaye sax nag jaabu ma kañ laa ñëw waaw jaabu ma ko. à ñaata weer. waaw war na mat ay set mois. ay saa nii waaw. ndax fi laa korité moom. Mm-hmm. waaw fi laa korité. nga ñëw rek jël komba mm-hmm. euh, avant tout promoteur bi nu mu def ba ba tëggal la sa combat ba yëg ni yaa ngi fi ba tëggal la ko. waaw promoteur bi man. saarma sax. Hmm. dëgg la sëñ Modou ñaa sunu papa la ñu ngi koy nuyu. Hmm. gisante wuñu sax mooy gisante wuñu sax xaw ma ko sax. Hmm. waaw oui mais Cheikh Thiam. maa ngi koy sant bu baax a baax. président fans bu Garga waaw léegi de moom la ci écurie Dóor mhm. mag la maa ngi koy sant bu baax a baax Cheikh Thiam. ndax ginnaaw yàlla ak yonante bi lii nii nii nii su demee ba am rek. loxoom mi ngi si ko waa dox na si wax si ko waa. Mhm. maa koy sant bu baax a baax. Cheikh Thiam jàpp na si nag moo tax sax lii demee nii kon amaana su dul woon moom. promoteur bi xamuma sax. waaw mais sama mélangeur tamit jàpp na si waaw jàpp si bu baax. Mhm. léegi combat bi nga jël ko ko doon bëreel. waaw ndax combat bi nii ku ma doon bëreel. kilo mburu la tudd kilo mburu mhm. waaw. ñu koy jël musoo koo gis. gisante nañ gisante nañ benn yoon nii rek. Mhm. waaw ndax man ku ma signatural bëréew maa kooku ku ma dafa damm. dafa damm dafa damm waaw. booy bi aju aju aju ma lañ ma wax kii laay bëreel ajuma bii nii nii paase nii mhm. ajuma. fekk pare nga. waaw. fekk loolu ndaw du day pare. waaw fekk pare naa. Mhm. fekk pare naa ñu ma ki ngay bëreel kilo mburu la tudd. Mhm. ma ne ko kilo mburu ñu ma waaw ma ne ko coo jubul ñu ne ma pare nga man leen pare naa. amul problème fekk man boobu entraîné naa pare man xaw ma sax kan mooy kilo mburu mais ñu ma doon kontaagal ay Déthié. Hmm. ah Giro. Hmm. yaa ngi dégg booy Talfa. Hmm. ay waaye gaa yu bëri su ma limee damay juum sax aada booy bawal. gaa yu bëri yu ma doon kontaagal. ma xam ne man ñii may kontaagal nii. non man su ma gisul kilo mburu sax ñii nii nii nii xaw ma xaw ma kan la si kilo mburu war a tollal de mais ñii may kontaagal yëpp. ñoo man kilo mburu te man ak ñii suñuy contrat day metti kon coo jubul bàyyi bàyyi lii mu dem rek baa ma bëreeg moom. ma bëreeg moom nii la deme yàlla may ma ndam si kawam. loo def. bu ma combat bi carrément nu mu demee. Hmm, ndaw. gaa yëpp ma teeyal teeyal. mooy sa mooy sama premier komba arène. waaw. bi mooy sama premier combat. Hmm. ma bëreeg moom gaa yëpp ni ma teeyal. ba sama raq elo. Hmm. Seydina. dafa ñëw ba si stade bi ni ma ñang ma ne ko waaw mun ma teeyal mm-hmm. ma ni coo jubul ma bëreeg moom arrière mu dox sama kaw mm-hmm. mu dox sama kaw ñu dóorante ay coup korante mm-hmm. dóorante ay coup arbitre bi sifflé ñun ñaar ñëpp ànd dem ardo ñun ñaar ñëpp ànd dem ardo ñu ñëwaat ma tey nag lee toog moom dóor ko dóor ko dóor ko gauche dóor ko droite dóoraat ko gauche mu daanu ma dóor ko mu daanu ma dóor ko mu daanu. dóor mu bi lan la gàllaaj la wala stratégie la boo teg wala loo xamante ne da koo jàngoon mën ko. waaw maa doon jàng maa ngi doon tax a gaay ga maa ngi tax a gaa maa ngi tax ak sama coach su Kaara Kaara maa doon tax ak moom gaa. waaw maa doon tax a gaa bu ndax waaw du ma ne gàllaaj la. Mm. mais daal entraîné na loolu waa mm. entraîné na lépp. lépp lu ñu war a moom entraîné nañ ko entraîné nañ dóor mu daanu entraîné nañ bëre. Mm-hmm. contact nañ. Mm-hmm. Mm-hmm. xam nga yaakaar bi Cambérène am ci yow ak Parcelles. waaw xam naa bu yaakaar bu gars yi am si man. mais dañuy wax yàlla bu yàlla tas yaakaar rek. yàlla na suñu borom mosoon nu si cat. yàlla nu cat seexlu. waaw ba suñu yéene si luñ bëgg nii. sunu borom moo tali ko daal. waaw. daan nga kilo mburu fan nga jëm. waaw. instant nii man maa ngi toog di xaar rek lu ma gaa yi wax rek gaa yaa ngi nii giro mooy nii ceene pap instant yi sori nañu. Hmm. yaa ngi dégg samay grand frère ñu ngi fi ñoom xaar gay ma seek. Hmm. lu ma wax rek man coo jubul pare naa ko waa hmm. ay lu ma gaa yi wax rek ni ma góor kii ngay bëreel barki alxuraan ma bëre kooku. fii ak ñaata weer nga bëgg a bëriwaat. man pare naa. man boobu moo la tëggaloon nga bëri. barki Sern barki Seydina Limaamul Mahdi waaye yow suñ ma bëri léegi nii damay bëri léegi nii man pare naa pare naa si lépp barki Baay Laay pare naa si lépp billaahi walaahi waaw. jërë ngeen jëf mbokk yi dégg ngeen li nga xamante ni moom la Niang Ballo wax. ndeysaan ñuy ñaanal képp koo xamante ni caabi daf la féete ginnaaw suñu borom génnee la fa ba lépp loo xamante ni rëq-rëq la wala njuumte bu la fa yóbboon yàlla boo fa dellu ñuy ñaanal ñëpp ñaŋ li amoon ci waxtu jot na dañuy tàggoo rek xanaa ñu bàyyi la nga tàggoo. waaw maa ngi sant sama yaay bu baax a baax di sant gaa yi ma jàppale si combat bi yëpp waaw di gërëm ñu ma ñaanal tamit si combat bi di gërëm ñu ma doon jàppale contact mbëri du ma tudd ken di leen sant di leen gërëm di gërëm Dieng Diop Souleymane waaw Mbacke mm. Sireba mm. Ahmed Tidiane mm. mooy Papa Laay boo yuy toog si man ñëpp maa leen di ñaanal sunu boroom xam nga bàyyi leen fi kàttanal leen doole leen waa kër Aana kër Pape Sama Ndiaye ñooñu duma leen faate buuba bu maa ngi koy tey la ay lañ ko doon defal ay ñaan. Hmm. di ñaan yàlla suuf oyof si hmm. maam laay xam nga di ñaan yàlla suuf seen kaw. Hmm. sunu borom yokk seeni leer xaare leen àjjana yu gën a kawe. waaw loolu leen di ñaanal bu baax yàlla ko borom bi def di gërëm aana nag bu baax a baax a baax. waa kër gi ñëpp ñëpp aji saxaw. ah ñëpp ñëpp waaw waaw yaa maam Cuufe nday Mari. Euh, Aysa maa ngi sant ñëpp di leen gërëm. waaw nice billaay ngeen jëf mbokk yi noonu la leen tàggoo xale la boo xamante ni ku ko jàppale ci làmb mu dem ñi nga xamante ni ñoo ko wër. Hmm. soxla nañ gars yi jàppale nu bu baax a baax a baax billaahi wallaahi booy deseetun dara. Hmm. booy bii nii rek cent cinquante mille la hmm. si kontam barki alxuraanu karim lépp a jeex. billaahi wallaahi ak ñeneen ak ñeneen Ibou Sarr jàpp na si Ahmed Sarr. Aba. ah ana autorité yi Cambérène yi. Ah. ñu dëkk fii Cambérène front inter cinq parcelles anuñu. ah man de bàyyi wax dëgg fa neex yàlla moom xaw ma nag nu mu demee noonu. Hmm. te fii nii gisuma kenn ku ma jàppale. Hmm. waaw am na nag ay boo yoo xamante ni nii. Hmm. may nan ma ay tiset. ouz design. ouz ouz design nooyin. may nan ma ay tiset. waaw. surtout Ousse rawatina Ousse moo ma banderoo yi nga doon gis stade yëpp Ousse moo moo ma ko indil may ma ay tiset yu bëri baraak cendu may nan ma ay tiset ñooñu moom gis naa seen loxo bu baax a baax a baax. rawatina Ousse di ko ñaanal tamit booy Ousse design maa ngi lay ñaanal baay bu baax a baax a baax a baax. li nga li nga bëgg su ñun yow tamit li nga bëgg sa liggéey suñu borom defaral la ko surtout la. waaw jantal booy nga nag mais sëñ Fallou lu si kanam rawulu bët uus maa ngi lay ñaanal bu baax baax yàlla la borom bi dooleel kàttanal la waaw. mbokk yi dégg ngeen li nga xamante ne moom la wax xale nag bu nekkee ci gox di défendre kuréelu koñ bi wala gox bi jar na autorité yi nga xamante ne ñu ngi ci gox bi ñu jàppale ko nañ ci teg loxo ndax ñi muy tudd nii ñëpp ay xaritam la yoo xamante ne ñooy ànd amul benn autorité boo xam ne topp na ci ginnaawam dimbali ma nag de force. waaye ñu ngi ñaan képp koo xamante ni yaa ngi dëkk ci gox bi mu dëkk rek nga jàppale ko à travers wasaare làmb mbokk yi jërë ngeen jëf noonu lañ leen di tàggoo tàggoo bi nga xamante ni moo dul tàqaliko ba ëllëg incha allah ci wasaare làmb ak beneen daanaan jaajëf champion jaajëfati ma jaajëf gaay